la plupart si jigéen ñi dañu jàpp ni bu ñu commencé am indépendance financière bu ñu commencé liggéey hmm, jàng instruite dinañu mucc ci li nga xam ne tey mooy maltraitance su euh, société bi wala maltraitance su foyer conjugal bi que ça soit muy maltraitance psychologique économique wala physique parce que dañu yàgg a gëmloo avec euh, cette euh, ère féminisme bi nga xamante ni daf ñuy gëmloo femme soit indépendante, femme soit libre, femme soit indépendante. Mais il <laughs> y a Parce que comme demain accompagné Digeni, donc demain base de données solide. Ceci dit que après plusieurs années d'expérience, mais accompagné Digeni, et la majeure partie de mes celles-ci, de consulter, donc de sont des femmes intellectuelles, des femmes ouvertes d'esprit, des femmes engagées, indépendantes, huiliguées. Donc des femmes qui assument leur vie. Mais ma traitance. Mais wow, où est le parce que bu njëkk dañ daan wax naan suñu yaay yi suñu maam yi dañ leen doon maltraité doon leen traité d'une manière bu doy waar ci biir foyer bi parce que liggéeyuñu woon parce que jànguñu woon donc su demee ba tey jigéen ñi ñu ngi jàng dem ba nekk ay docteur ay médecin ay juge parce que ay professeur man femme yi may accueillir sama formation sont des femmes cadres de haut niveau macha allah mais da ngay gis ni ñu ngi toog di subir maltraitance te mënuñ ci jógee. donc je me suis interrogée et j'ai commencé à mener mes propres enquêtes sama ci caapi yi may def questionnaire yi questionner xool creuser et je me suis rendu compte problème bi lenn la bu ñu bëggee euh, résoudre problème yi bu ñu bëggee solutionner problème jigéen ñi il faut que ñu solutionner li nga xam ne mooy suñu traumatisme d'enfance yi ak suñu blessure vision bi nga xamante ni moom la am ci sëy mooy sama yaay dafa muñoon ba dee pour lan man du muñ ba dee ba pare mu am piège parce que tey dañ la naan oh, toi la femme féministe là toi la femme indépendante la ah c'est toi qui es là à te dire que waaw du nangu lii du ma nangu laa je suis indépendante je suis lii je suis là donc tu es féministe nga ni non je vais démontrer du féministe lu ñu mën a def ci sëy bi dinaa ko mun dinaa ko nangu <laughs> kàmb gi dafa naan da doon daw ab ab rocher nga tàmbi ci kàmb yow kàmb gi nga tàbbi damay wax ni suñu yaay yi sax ñooñu tànn dans le sens que au moins. sa yaay elle était femme au foyer c'est-à-dire que pas le dos ou la tête dem di rey boppam di def ay liggéey yu metti wala boog liggéey toute la journée say doom amoo ku leen téye nga ñëwaat ci kër gi jëlaat sa xaalis jox ko góor bi ba pare góor boobu du la defal dara ba pare mu ngi dem di doxaani ba pare yow tu te retrouves avec maanaam suñu femme génération bi on se retrouve avec des genres de problèmes yu yu yu complexe mais yu metti mais yu yéeme yoo xam ne yow des fois tu as juste envie de te mooy xew ndax ndax tey da gis ne bu ñu waxee suñu maam yi suñu yaay yi waaw kon seen kër couver seen doom yor seen ay doom hmm, toppatoo seen bopp nekk ay jigéen même bu ñu amoon coono c'était pas pareil ñun tey xoolal suñu génération la plupart si ñun mënoo am sax jànq bu wóor bu assuré booy bàyyi sa kër pour ñu nekk Afrique ñu nekk Europe moom xalaatuñu jànq c'est-à-dire que yow tu te lèves tu te heures du matin nga accompagner say doom école. nga daw si ñëw lijjanti looy lekk daw dem liggéeyi wàcc jiitu waa ji taaj teggi préparer tu fais tout pour ce que bu wàccee fekk li su weer deewee la majeure partie si jigéen ñi waxuma la 50 50 waaye boo may tuur <laughs> kër ga yëpp ñu koy yor ñooy fay location ñooy fay facture yi ñooy defar seen njaboot lu la plupart te waa ji xalaatu jënd leen bu ne serait-ce que boucle d'oreille pour cadeau la majeure partie d'entre eux maltraite ak. physique du bien sûr que physique parce que tey imaginel jigéen boo xam ne yow la majeure partie sa temps yaa ngi koy def dehors soo ñëwee ne serait-ce que le bonheur d'être maman couvrir say doom waxtaan a ñoom jege leen trouver du temps pour doo ko am parce que yaa ngi taw daw ci ginnaaw sëy bi ba pare góor bi traumatisé la délaissé la jàppalewu la assisté wu la nga topp di laajte lu tax demande mais dangay boole plusieurs problèmes à la fois donc jigéen ñi problème bi du indépendance économique indépendance du cerveau la ak du cœur mais il faut qu'on se détache émotionnellement am sa liberté ak autonomie boo xamante ni daf lay permettre nga détaché wu ci pensée limitant yi ci croyance bi société bi am ci xalaatin yi ñuy figé jigéen ñi soo waxee ah violence faite aux femmes ñu taxe la féministe boo ma taxe la féministe et après je m'en fiche li ma importé mooy l'injustice lay défendre après nit ñi du ñu xalaat si man kan laa doon loolu ça m'intéresse pas ay waay xaj yi donc ñu ngi daw préjugé yi ñu ngi daw société bi étiquette yi mu ngi koleel mais en même temps ñu ngi tombé ci beneen piège bu gën a dangereux te nag ma wax leen leen da ngay gis même femmes yooyu man j'ai rencontré des femmes yoo xam ne indépendantes des femmes yoo xam ne macha allah assumé seen dund haut cadre mais ñuy dund violence conjugale parce que gis nga góor ñi am basse estime de soi de soi bu ñu bëggee natt seen bopp pour wane ne am nañu confiance en soi dañuy dem xool femme boobu nga xam ne elle s'est bien euh, réalisée économiquement mais euh, psychologiquement non donc économiquement elle s'est réalisée donc am na tout le matériel et confort du monde mais psychologiquement c'est une femme brisée à l'intérieur depuis son enfance et lijjantiwul ay trauma am donc góor boobu dem tànn la yow choisir la wane ni ah ma femme elle est juge ma femme elle est médecin ma femme ma haut cadre elle est d'accord c'est une belle statue mais day commencé ci yow un de trois mu la danga may jaay yaa ma ëppalee danga a jàng danga may jaay yaa ma a may a lii comme ça miette dina damat miette par boo kaasee sa doléance wala sa droit wala nga ni ça c'est pas injuste c'est pas juste du moins mën na ah parce que féministe nga parce que li donc yow loo wax mu jël ko relier ko ak le fait nga nekk jigéen bu am certain statut donc tu ne peux plus te défendre yow après tu commences nag dugg ci benn dissonance cognitive commencé ah est-ce que du man maa mel nii est-ce que du maa def li bonjour sa estime de soi disparaître na parce que sa base de données amul bi dem mu commencé physique abus physique mbéj dóor abi économique mooy kër gi lépp yaa koy def nga di ko jural ay doom di teg nga dem yow ba yow ci sa rencontre en tant que femme haut cadre bi nga occupé ci société bi teewul yow tu es une femme détruite ba nga xam ne te pourtant xëy na yaa ngi défendre ay cause d'or pourtant xëy na yaa ngi ci télévision yi ñu lay invité ngay wax pourtant xëy na yaa ngi réaliser des choses mais tey ruus nga wax yow li ngay dund ci sa <laughs> allahu akbar <laughs> no mais mais mais góor <laughs> jigéen ñi defar leen seen estime de soi du ma ne confiance en soi parce que les les les jigéen les femmes sont capables de réaliser donc am ngeen confiance en soi yéen a ngi réaliser des choses yoo xam ne góor ñi sax réaliser tuñ ko mais defaral sa estime en soi valeur bi nga am ba nga xam ni góor bu la naree saaga sax duma ko sekk ak góor ci sëy bu dara desul lu dul loolu vraiment nga xajal ma je m'assume yu bëri dañu ragal divorce divorce mooy seen pire cauchemar le fait que ñu ragal divorce le ragal nañ ñu ne ah elle est indépendante elle a tout mais elle n'a pas de mari <laughs> tax na ñu muñ l'immuable di muñ des choses yoo xam ne kenn mënu ko muñ le fekk aussi ñu naan ah elle a 30 ans elle a tout mais elle de mari dafay tax euh, ñuy dugg ci situation yu humiliant yu désastreux yoo xam ne ñoom seen jëm bopp dañu mujjee jéppi seen bopp parce que société bi da lay wan ni yow en tant que femme tu n'es rien tant que tu n'es pas mariée tu n'es rien tu ne rien tant yow amoo fan amoo jëkkër amoo ay doom wala boog boo amee jëkkër amee doom ñu ne la sëy bu bon sax moo gën euh, nekk célibataire wala sëy bon moo gën xaw ma sa far bu bon bi du n'importe quoi jigéen ñi defar leen seen estime en soi ngeen xam ni yàlla sàkku leen pour ngeen ñëw di torox ci sëy sëy comme ni ma ko waxee tout le temps pilier la jaamu yàlla la jaamu yàlla nag dafa war a ànd ak li yàlla régir donc ni ngeen def ba instruire ba nekk ay haut cadre nekk ay jigéen yu àgg de haut niveau ngalawaay fexe leen instruire seen diine diine bi leen di protéger di leen jox seen valeur di leen delloo seen liberté de conscience liberté mentale liberté physique et émotionnelle diine boobu boo ko sàgganee rek sa dund gi day jaxasoo yàlla ni ma naan yàlla suñu borom ku ko jël négligé ko mu bàyyi la ak mbindeefam mu lay mbugal di la wan lu dara jarul jusqu'à ce que tu retournes vers Allah subhanahu wa taala jox ko sa dund gi nga récupérer waat sa liberté te jigéen ñu bari dañuy dugg ci sëy di démontrer jël l'homme bi def ko le centre de leur vie topp ci di daw di ut lu koy neexal di ut lu koy bégal yow tu ne demandes Mais quand tu ne demandes rien, tu Tu es tout le la lamentation, dans la victimisation. Tu n'exiges rien. Couple boobu yow ñu lay diri rek yow da nga abandonné sa individualisme abandonné sa njaboot topp ci ginnaaw góor et que suñu cauchemar ak suñu problème yi métti yëpp loolu moo ko teg kon indépendance bu ñu koy wax nañu am indépendance émotionnelle guérir suñu ay traumatisme ba pare autonome ci suñu dund gi. bañ yaakaar ni nekk nga ci sëy rek là jeune ne dois pas dépendre de mon ba tax na muy lekk sa alal di ko utiliser ba nga demee ba dugg ci sëy nekk jigéen di ko jural ca nga war a lekk alalam moom je ne partage rien parce que na serait-ce jur doom risque la pour ta propre vie donc sa contribution ci sëy bi mooy sa vie góor contribution ci sëy bi mooy xaalisam ak li muy li nga xam ne mooy ay relation ay actam te des duñ ko sax matal